jërë jëfëti jëfati mbokki euh, internet prestige Thiès ci teewlu gi ak confiance bi comme niñ leen ko tamalé défar rek euh, dans les grands moments tay ji prestige mu ngi leen ñëwul fi ci biir Tiwaawan Tiwaawan nak xam ngeen ni ñu ngi waajal li nga xamanteni mom moy mawlud bi ci kaw lolu ñëw nañu jéem a ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo fi dëkk pour ñu wax ñu naka lañuy ñuy gamu gi ak naka lañuy ñuy def pour dalal nit ñi ba bu ñu ñëwee ñu passer un bon mawlud ñu déglu leen ay booy ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi leen di fay. yaay booy yow da ngeen dëkk Tiwaawan yéen naka ngeen di waajalee fi nekk nii gi ak seeni gan pour dalal leen. waaw alhamdulilah ñun day sant yàlla rek di julli ci borom guddi gi Seydina Mohamed di waajal gàmmu gi rek macha allah préparé lépp nag mom. dëgg yàlla parce que borom guddi gi jaral nañ lu ne lu ñu am dinañ ko ci def dinañ ko ci wax nañ togg moom baax teral gan ñi recevoir leen ba dëgg Masya allah di sant yalla ndax borom guddigi kiko wote ko rek jaral nañu lu ne Seydi Hadji malik jaral nañu lu ne mo fi indi won suni maam ba ñew lang wa diko ko nak diko sargal diko wa parce que danaka mom rek mo ne gamu dal ne gamu tiwaan rek lañuy ñuy xalaat moo tax toujours dañuy di am fierté bu baax gan ñi ñew te la ñew sax bu dikay dañu wacc suñuy nek genn suñuy nek lu len teral doyul duñu togg rek sax dañ koy xeeb ku ñen li nga togg ding ko yok ma sha allah bo amé ndimbal di nga tok bo amul di nga dem ba nga yalla baxna nak ma xam nga ya nga duggu ma sha allah deug yalla la ko am jabo de xam nga jabo di ko ne da ci japp ñeppay japp deug yalla suñu. fas yéenee teru gan ñi ci jamm ak salam di ñaan yalla ñu ñew ci jamm ak salam delu ci jamm ak salam ñun nak ñun waati ñi ngi def lu mën luñu am danañ ko teralee gan ñi ndax borom guddigi dégg naa tamit da ngeen di def ay cotisation di teg ak yooyu uniquement pour gàmmu gi est-ce que mën nga ñëwaat ci loolu. waaw waaw ñu ngi def suñuy avec nag avec boo xam ne dañ koy sos chaque samedi 1000 francs la ñuy déparé ba mille ngir guddi na bi rek nag moo tax ñu koy def bu ñu defee di cotisation samedi bu jot mille francs ba 5000 fa lañ yem. bu kon avec boobu bokkul ak avec bi nga xamante ne dañ koy toj ay tabaski. non non non bi pour gam rek la ñun mom lañuy def gam giñ guddik na bi rek luñu ñu gan ñi actuellement nii toj nañ ko bi burdu bi démarré pour teeroo ko gan ñi défar ci suñuy néeg défarat jënd suñuy achat lu wara war a teeroo gan ñi ñëpp moom macha allah xaaruñu ci kenn. ah sante yalla rek julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam. ah ah tay bi ñu koy def bu baaxa baaxa baax sama doom wax deug yalla bale ba mu set préparer def rek ba mu baax. yal nañu yàlla fayal mag ñi fayal ñu sunu sëriñ yi sunu wasila yi Seydi Hadj Malick ak njaboot sëñ Babacar yëpp ñu ngi koy waajal moom dalal gan ñi bu baax a baax a baax a baax ndax ginnaaw yàlla daal ah ay nitu yàlla kaamil lañu ñu ngi leen di dalal bu baax di leen jàppale si gan ñi incha allah di bale di defar. di préparer rek lepp lo xalaat rek. ñu fi ñuy fóot da melni li lii ci waccay bi la. si wàccaay bi la fóot yére yi balé négi yi désinfecté ko def lepp rek ak set ak sel rek. ñi ngi ni nak di téru gan ñi ah gan yi Seydina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi leen di téru di téru gan imam maam malik ak khalifa am mu fi bayyi fasiyene ganale gan ñi rek nañ ko daan defé ñi ngi sante yalla nak ndax ñi ngi koy bëgg fekk at yu bari. fi leen xale ba nekk mag waaw ba suñu juróom-ñaar fukki at mat na wala mu ëpp ko. ngeen di waajale fi mu nekk. waajal gi ginnaaw yàlla jubli ci njëkk a set seetal kër yi seetal mbedd yi seetal wanag yi waaw seetal xol yi di ñaan nag ci barke yonentu beeg maam Alaaji Maag mi fi indi guddi na bi gii yàlla gën a leeral suñuy xol gën koo naatal saxal na nag ci lu baax ñu di ko def ak di ko wax. di ko ñaanal gën yàlla indi leen ci jàmm delloo leen ci jàmm kenn bañ a manqué waaw li ñu ci bëgg daal mooy sant yàlla ba mu bari ak kun koy sant le xanaa di leen xaar rek di waajal gàmm di commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ci alhamdulilahi rabil alamin fii Tiwaawan la kër wàccukaay la wax dëgg yàlla ñu ngi waajal gan yi ñu ngi préparé sànc ñu ngi defar fépp yaata fa génn suñuy néeg jox suñuy gan ñuy lal gan yee moom lépp ndax maam Alaaji Maalik jar na lu ne ñi ngi sant yalla bax dara nak du li pay am bu soobee yàlla. kon dal yeen wa paré ngeen pour recevoir gan yi. pare nañ bu yag bo avant weer bi lañ pare avant weer bi lañ paré deug yalla suñuy gore japp lañu xalé yi ñëpp ñëppay jàpp waaw ñëppay bax kër gi dal mom sa di mu jégué jakka ji ni kër sey Hadji malik la ku dik di nga lek mbéddi lañ taxaw lek yi ma génne yépp fi mom ku fi jaayat lek sax do jar man mi dama la jaay lek waye it naka damay may rek togg di may ci biti so lol lañu jangal lol lañu nampal ñun paré nañ ñun pour dalal gan ñi pare nañ mom pour dalal gan ñi wax deug yalla préparé nañ suñu di ñaan yalla yalla may ñu mottali ko def ko ci gamu ci jam ak salam delu ci jam ak salam heure bi dem bo fi ñewal ñing ci cere yi yalla seede waaw ñenti wol wol bu ci ne juroom ben fukki kilo wol na ko cere yaangi ni bu le nexé yéeg ci ko bu le nexé dugg nga gisi nu ndax lepp nak diko téro gani nabi ndax nabi lo ci def jar na waaw loo ci def jar na ko pour recevoir ñëpp ku fi romb ku fi rombul ku jadd ku jàddul ubbi na nuy dusi la nanu lali ah lal basa ngi nag fas di fanan ci waay baye gan yi ñuy teul yep yep waaw lu neex way na ko def daru manki di ñaanal gan yi ci ak salam ñu fekk ñu fi jàmm ñu bàyyi ñu si jàmm ak salaam yeneen yàlla indi ci barke alxuraanul karim mbokk yi gis ngeen ko lii moo nekkoon li nga xamante ni moom mooy reportage bi ñu leen defar loon fii ci Tiwaawan ngir xool ñii nga xam tiwaat ñooy waa Tiwaawan naka la ñuy waajalee euh, gàmmu gi gis ngeen ko li fi xew yëpp ñoo ko gisandoo su ko defee xanaa di leen jaajëfal rek di leen dig daje ci yeneeni reportage